ñu ngi sàkk ci yow bala ngay seetaan vidéo bi nga bës abonné nga bës kolos bi nga bës tu mbooleem luñ dugal ci kër gi incha allah nga man di ci jot. ñu ngi ci waxtaan wi nga xamee ne moo di yoon wi tey nag ñu dalal fi Mouhamadou Moustapha Samb muy borom xam-xam ñu ràññu ko itam mu nekk it taalib Serigne Touba ba tudd boppam soldaaru Serigne Touba mhm. waaye tam ñu xam ci moom ay mbiri xam-xam yoo xam ne lu wér la. te man loolu su ma ko waxee war ngeen ko <laughs> war ngeen ko mën a war a mën a gëm ndax itam du ñu dugg ci lu ñu xamul waaye xam na ne borom àll wala ay d'ailleurs euh, am na ñoo xam ni dañuy ñëw léeg-léeg di ko sàkku ci moom tey di borom xam-xam waaye lii tey firnde la ci ni ma ko waxee woon léegi waaye ko soxlaat ma nga ko woo ci 78 121 14 13 danaa waxaat beneen numéro bi alors xam nga lii yëpp nag dafa am dafa am daj dëpp gi mhm. te moo di mhm. salaatu ala nabi mooy julli ci yonent bi mhm. ba ay salawaat nag ñu am yu bëree bëree bëree bëri mhm. dama xamul nag yéen ci seen tënk yeeg ci seen kii yi mhm. eh, daf ci am yooyu tawarkàlla wala waaw waaw waaw bari bari na xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ci saaba yu ku ko laajoon ni ko bis penc kan moo fa ëpp doole kan moo fa ëpp daraja mu ne ko sallu biyee kii julli ci man moo tax boo xoolee Sëñ Tuubaa daa jël at mi muy fukki weer ak ñaar mu ni salaatu sitta bi marxi sitta taati ibata mahati sha i mhm. juróom benn weer yi damay tagg rasulillahi juróom benn weer yi may julli ci moom mhm. nga xamante ne at mi day daal di jeex léegi nag euh, salaatu ala nabi mooy li nga xamante ne nii képp ku koy def ak ku mu mën a doon mën ngaa wat ni yaag yàlla yaa koy yéen a bokk di ko def yaag malayka yi yéen a bokk di ko def te li jaam bi di defandoog yàlla yërmande lay doon ci moom ndax julli ci yonent bi lañ wax jullit gi ñu xam nag muy allahu akbar sami allahu liman hamida rabbana walakal hamdu googu moom yàlla képp lañ koy defal mm-hmm. mooy prosterné wu di sëgg waaw boobu moom yàlla képp ah, ah, lañ koy defal ak def sujjóot waaw waaye nag julli gii ñuy wax nag muy julli ci yonent bi loolu ñaanal yenent bi sallallahu alayhi wa sallam la nga xamante ni képp ku koy def mooy métiem yàlla yaag yàlla yéen a bokk métier inna allaha katooy malaikatahu na ala nabi waaw ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi léegi nag farata ci jaam bi donte benn yoon la ci bis ci ci ci ci ci ci dundam mu julli ci yenente bi mhm. am na benn labbe benn ku baax koo xamante ni nii dafa faatu bi mu faatoo boo xoolee ibris bi bi alaaji abdul aziz dabax bu mag bi bind turandoo bi nekk Tiwaawan moo bind Ibris Ibris boobu bi mu ko bindee am na ci chapitre boo xamante ne daa am waa bi mu faatoo dañ ne dañ koy yóbbu dañ koy yóbbu safara sunu borom ni leen déedéet bu leen ko yóbbu de ndax kooku mës naa ubbi ab téere gis ci turu sama xarit bi daal di julli ci moom te julli googu mu julli woon ci moom nag nangu naa ko moo tax du koy dem sawara kon képp koo xamante ne nii ragal na bëgg na àjjana bëgg am ay martaba bëgg jege yonente bi sallallahu alayhi wa bëgg yàlla di ko jégal bëgg yàlla di ko wërsëgal nay julli ci yonente bi sallallahu alayhi mm-hmm. képp kuy julli ci yonente bi ak ku mën a doon kenn du la gis di yërëm waaw salaatu ala gu wér nga di ko liggéey amul kenn ci àdduna ku lay gis di la di la yërëm waaye yi ci gën nag mooy yi nga xamante ne yonente bi da koo jàngale mm-hmm. lu mel ni salaatul ibrahimiya mhm. gis nga fi ne moom dañ ko indi ca ñaareelu ñaareelu ñaareelu taaya ba nga xamante ne nii mooy nekk mu nekk sunna mhm. nga xamante ni nii mat gu mu mat la moo tax ñu di ko indi nga xam nit ki lu mu ko fàtte fàtte fàtte ci julli salaatu ibrahimiya nga xamante ni loola moom lu wér a wér a wér a wér ni benn salaatu gënu koo mat mhm. bu dee salaatul fatiha nit ki nga xamante ni jàpp na ba pare jàpp def farataam jàpp ba def ñaan nga mu war a teg ba pare teg ci salaatul fatiha jaamu yàlla gu mu jaamu yàlla ci ci njàpp moom sunu borom dana ko nangu te ba pare bu fekkee ne dafa jàpp ba pare wax salaatul fatiha benn yoon sunu borom dana ko jéggal ay bàkkaaram donte bàkkaar yi dafa toll ni géej salaatul fatiha benn salaatul fatiha wecc na juróom benn téeméer beneen salaatu bu dul moom kon salaatu yi noonu la ñu ëppantee. waaw darajaat lay am.